bismillah bismillah inna waliyallah jërëjëf sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ñoo ngi leen di siyaare jox ku nekk yéeg waayam di ko buur yàlla jox ñëwaat nañ nag ci seen émission bi nga xam ne moom la àdduna bi yëpp doon topp muy seen émission bu mag boobu nga xam ni monde entier ñoo koy seetaan muy émission jëf jël émission jëf jël nag ñoo leen ko doon présenté waaye ren nag dañoo bëgg émission jëf jël ñëw ci beneen facette lay ñëwaat ndax dina ñëw ci benen facette ndax bu jëk dañ daan fekk bi wala jankat bi dem kërëm waxtaan ak mom waye nak olof mo wax ni ku yok ku wàññiwul ya yok ku yokul ya wañi dañoo bëgg nak yok yëf ni ko yoké moy dañoo bëgg def ni képp ko xamni bay bàyyi nga bala ngay jankat lo mëna doon manam di yëngu ci dara ndem ya xam dañ lay fekk ci biir tool ba nga nekk bay ñu fekk la ci tool ba nga yëngu tool dañ la fa fekk jëf jël dina la fekk bu fekkee dañ laa fekk nga nekk ci mécanicien bi jëf jël dina la fekk dinañ la topp ci robinet bi foo nekk dinañ la fa fekk sikarkat bi jaaykatu café bi dinañ la fekk fa ngay jaayee café ñu waxtaan ak yow ci café gi waxtaan ak yow ci yoon yi waxtaan ak yow ci lépp émission jëf jël bàyyeetul dara kon nag mbokk yi na ko ñëpp bàyyi xel lépp loo xam ni bagage yi Baye Fall la danañ ko ci waxtaan lu waay bëgg a xam na ngeen ko doon toppee yéen ko doon laaj ñu ba tey jii ñu ñëwoon nag tàmbale war nañ ko kon na ko ñëpp bàyyi xel kon ñoo ngi leen di waat bu baax di leen jox rendez-vous incha allahu rabi talaata bii di ñëw seen émission jëf-jël dina nekk en direct dina tàmbali ci seen bu mag bi di TMP Events di top modèle nga xam ni mooy seenu Baye Fall yi seenu ñëpp moom la ñuy topp kon nag mbokk yi na ko ñëpp bàyyi xel incha allahu bi ñoo ngi ñaan ci màggug yàlla baaxu yonent bi barke borom Touba Khadim Rasoul doolay Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ñëpp am jàmm barke Cheikh Ibrahima Fall barke Serigne Cheikh Fall Baye Góor jërë ngeen jëf try